UCAB FM. li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye. bis. simili yéenekaay yu bëri ña nga des ba léegi ci projet bi nga xam ne kon taxawal nañu ko ngir indiwaat poste ilimaani jëriñ ci biir réewum Sénégal premier ministre lañ a indiwaat yéenekaay yu bëri xëy dinu xamal ne faaw nag danañ amal ay coppiku yu mag a mag ci charte réew mi yéenekaay bi dinu xamal ne conseil euh, conseil constitutionnel li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu wi nga xam ne kon moo jëm euh, ci wàllu ko projet de xam ne yéene nañu ko xoolaat faaw rek danañu amalaat ak xoolaat ak jubbanti ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko charte gi ngir bi dinu xamal xamal nag ne lu ñu ci mën di nemmeeku yoo xam ne kon faaw rek ñu takkal ko ay ndomba tànk yoo xam ne kon dana ci mën a sukkandiku ngir mën a amal ab liggéey yéenekaay bi diñu xamal ne lu ñu ci ba fi mu toll nii li nga xam ne kon moom moo di ndomba tànk yu gàlloon nañu ko ci kaw njiitu réew mi faaw rek ñu jéem ci ngir mën ko jox ki nga xam ne kon moom moo war a doon ilimaani jëwriñ ci biir réewum Sénégal yéenekaay yu bëri ca la ñu xëy diñu xamal nag ne lu mu néew néew lu toll si ñaar fukk ak juróom ci ay article yoo xam ne kon nekk na nañu ci sarti réew mi doon constitution bi faaw dana danañ ko jubbanti soppi ko yenn sax danañ leen fa jëlee indi faat fa yeneen vox populi yéen kaay moo xëy dinu ko nettali yéen kaay bi euh, euh, kaay bi dinu xamal ne luñ ci mën di nemee ay yëfi politique dong mooy la laxu sa ginnaaw te du kenn koo xam kon moo koy jëf bu ñu sukkandikoo ci euh, ki xam kon moom moo di Amadou Gueye mbiru président Macky Sall moom rek mooy xool nu mu jubante ay mbir boppam Sud Quotidien yéene kaay nekk beneen ku nekk ku jëpp politique yi nga xam a sukkandiku ne kon moom la ñu bëgg a soppi ngir mën a indi rek ay soppiku ci wàllu ko jongante yi législative yi nga xam ne kon moom na war a tànn député yi ci atum 2022 yéene kaay xamal nag ne luñ ci di nemmeeku lay xalaatam lépp mooy fexe ba dàq lii di jongante yi nga xam ne kon moom la waajal ñaar fukk ñetti fan ci weeru janvier atum 2022 bi nga xam ne kon lu jëm ci wàllu ko bokk moomeel yi doon mairie ak département yi la ñu war a tànn ay njiit yéenekaay bi duñu xamal ne kii jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ay mairu ñi ngi yéenekaay bi moo ñuy xamal ne luñ ci mën di nemmeeku moom taxaw na ngir nag ngembul li nga xam ne kon moom moo di xalaatum njiitu réew mi indiwaat fi njiital gouvernement lool na ña nga ca taxaw di ko layal ngir rek ne man koo jaay ñi di askanu yéenekaay bi duñu xamal luñ ci mën di nemmeeku soppiku gu ko soppiwaat li nga xam ne kon moom moo di charte mi loolee dafay doon loo xam ne kon dana gën a yombal lii di taxawaay bi ngir man fee indiwaat li xam ne kon moom moo di poste premier ministre waaye dem dana gën a jàppandal liggéey bi yéenekaay bi li ñu xamal nag ne luñ ah, ah, la ñu dénk lépp loo xam ne kon jëm na ci doxalin wi la gënee faaw rek moom ay day xalaatam Sud Quotidien ñu koy nettali Le Quotidien yéenekaay di ñu xamal ne njiitu réew président Macky Sall jamono ji am na naka leneen loo xam ne kon moom moo tax mu jël xalaat bi ngir bëgg fee indiwaat li nga xam kon moom moo di poste Ilimane Diodou ci biir réewum Sénégal sunu naataango dina xamal ne luñ ci mën jamono ji moom ki xam kon moom moo di njiitu réew mi dañ ko fas yéene takkal ki nga xam kon moom moo di président bu République démocratique bu Congo président Macky Sall loole nag bu ko boole ak li nga xam kon moom moo di njiitu réewum Sénégal bi mu doon ngir mu boole lépp di ko lijjanti loole dana mën a doon ay muy bëgg indi li moo di poste premier ministre sunu naataango yi di le quotidien ñoo xëy di indi li nga xam ne kon moom moo di gis-gis bu ni nga ca président Macky Sall ak lu jëm ci wàllu conseil nga xam ne kon moom la ñu weesu ci la fësaloon nga xam ne kon moom moo di yéeneem ne lu jëm ci wàllu poste premier moom danoon ñu ko indiwaat ci biir nga xam ne kon dindi woon nañu fi ci atum la solo yéene laas ñoom dikk nañ ci leneen loo xam ne kon bokk na ci bëccëg gu ne daara ak dige yu tooy yi nga xam ne kon diggeeti nañu ko fa yéeni kaay yi di xamal nag ne luñ ci nemeeku kii di njiitu réew digle na ne daana amal ab subvention boobu la téeméer boo jël juróom fukk yi dafay jëm rek ci li nga xam kon moo jëm ci wàllu ko jur gi naka lañ ma def ba gën leen dooleel waaye tam xeex ak li nga xam ne kon moom jur gi yéeni kaay bi diñu xamal ne président Macky Sall mi nga xam ne kon jamono ji moom nag ma nga woon ca sàmmkat yi dig na leen loo xam ne kon ñu ci bëri ña nga cay yëkkati seen kàddu di ci dalal seen xel yéenekaay bi ba di ñu xamal ne luñ xam ne kon jiitu na leen ko jëm na ci wàllu ko naqarlu gi nga xam ne kon naqarlu nanu ko xam ne kon eh, ki nga xam moo di Gaston Mbengue yëkkati na ko sunu naataango yi di enquête yi nga xëy di ñu xamal ne Gaston Mbengue yëkkati na kon moom moo di taxawaay gi nga xam ne kon moom moo di Jean Paul Diaz waa këram ne nag li nga xam kon moom moo jëm ci wàllu woole bu ñu leen fi jëloon du soppi dara ci doxalin réew mi yéenekaay yu bëri bëri xëy de fësal ci lenn ci ay kilifa yoo xam ne ko métti loole nag moom la nu ko may àpp ba benn fan fan rek la Dakaractu point com moo xëy dinu ko nettali yéene moo di ko audience bu kaay bi moo xëy ci mën xam kon moom moo Jibril Ngom ak audience am xam kon am na ak njiitu réew mi ci njeextalaay bis gi coolo bëri na ci audience sa polémique na lu yéene kaay bi tuddee dinu xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku fi nii ku ci ne ak na nga ko cee gisee Walf Quotidien ne nag njiitu réew mi ak moom mi nga xam ne kon moo jiite majorité présidentielle bi jamono ji de coow lu bëri na ca lool ci wàllu li nga xam ne kon moom moo di audience am boobee ak moo amal ak ki nga xam kon moom moo Jibril Ngom beneen yéeni kaay média point sn ma nga ca wàllu wér yaram ñii di waa OMS doon kuréel gi saytu wàllu wér yaram ci àdduna ñoom nag ñaalu nañ lenn ci ay frontières yoo xam ne tëj nañ ko ci Afrique ndax jàngoro ji OMS ne nag loolee war ko mën a xoolaat sunu naataango na ci lañu ko tuddee yéenekaay bi diñu xamal ne tiitaange dëggantaan la indil ñi di nasaraan wi ba nag bëgg nañ koo indi ci Afrique yéenekaay bi xëy diñu xamal ne jafe-jafe dëggantaan lañu ci dund bari na ci jamono ji ay réew yoo xam ne kon seen njàqare tàmbale noonu di ko charte de ko a a xeex fitna ci biir réew mi yéenekaay bi di igfm point sn moo ñuy waxal ne ni ki tey ji ci altine ji war a gisee ak njiitu réew mi sunu naataango diñu réew mi tey ji lañ ko bëgg a yóbbul këyit yi sunu naataango yi di IGFM point sn noo xamal ne kii xam lu nu mel nag mooy kilifa ko kuréel googule di xam rek ne président Macky Sall ni ko tey a Ahmed Tidiane Sy mi njiit la moo xam lu nu mel yéene kaay bi moo ñu koy nettali Dakaractu point com ca la koy jeexale ña nga ca mbas mi di coronavirus sunu naataango yi xamal ne réewum Sénégal ni ci altine tey ji ñaar fukk juróom-ñeenti fan ci mu jàngoro ji kenn ku ko amoon wér na amul kenn kuñ ci lim tey mu faatu ci niki réew mi yëpp jamono ji fukk ak ñetti nit la waa kër docteur Tim di faj ñaar ñoo ne sooy tas mbokk yi kaaya ngoog dig da jëlëg incha allah. UCAB FM. li